frontière bi Casamance. mais bi yombul. diw

What the? On n'a pas regardé. Oui, ça va. Baba, comme ça. Non. Oh, Hey, hey, hey. Soxla hei, hei, soxla mo dox. Sama soxla mo dox damay dem ma war rahmati. Way xam ngeen lima soxla, ma daano ci buntu may ga yeen gëna xam lima soxla. La ilaha illallah. Do ay dugal leen ma ci biir may ga bu leen ma gëne dugal leen ma. Dugal. Sama soxla soxla dama mo dox, da ngay xam la ñu. Ah. Sama soxla dama ci do daal. Sama yow sa jabar Fall xanaa ko maa yow sa moroomi jën yëpp jox nañ seen goro yi sukkur koor wala xam laaj la ko. aywa man maa amul soo leen amul jom heure bi sax loo leen taxawu ma di leen ko laaj ndax ñàkk jom weesuwul heure boo tëddee kii di sa noppi lu nekk ma di ko wax yow aw ma dara ma wax ak yow soo bëggoon jox sukkur ko doo ko laaj si jëkkër bii nii dem ko wuti ci mu ñëw jox ma ko. parce que gorowuma tak taxé mau ma, ndax sama jabo sama doom ji ni kim tak mo gëna gën a yées loolu laa doon ma def ñak leen fayda trop man ke matati. man fàtte na ma woo sama xali ba ma dajé lu fii ci yoon bu de xaaral ma kau koo téléphone ay kumba sax ko dina gis ci xar xar ma ko tok ni man ko woo keroog ba ma koy doxaa moo ay bés gañ nga yor te gañ bii ci la koy doxaa nii gañ bi ci la koy doxaa nii kumba

fan nga nekk nii. man maa ngi nii ci couloir damay doon bële. ah dama doon bële mais tey bëgg naa laa seet sa kër de. ah ñëwoon. mais loo may toggal añ tey comme que weeru koor la nekk damay damay ñëw foofu pour nga jox ma ma añ ba suuf ma bàyyi ba ñëw. waaw. yii baax na mais ana kumba mais wuy ma coupeel coupeel damay bañ kumba daan may jàpp quoi. waaw baax na baax na baax na ci. tey jii su ma demee rek. ku naa ma da ngay wóor da ngay wóor mais damay dem sama kër gel bi mu jox ma añ ma añ ba suur naan ba màndi su ma ñëwee rek tëdd ci wetam naan nii